برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجا جخن نينان bu boba ma wan la ginnaw deglotuma la te sey beug beug duma ci taxaw ñom juroom ñent ñi bi ni jël

wala boog loolu lu bees la loo xam ne ñun xamuñu ko woon waxu président di loi président li mu mën a jëf la ca gën a rëy signature am ab décret la mën a jël te loolu ci règlement yi la bokk bu ñuy xool la hiérarchie des normes juridiques règlement lu suufe la lool décret lu suufe la lool par rapport ak loi kon président kàddoom mënta doon loi waaye wane nañu ñoom seenu jébbalu ci exécutif bi du lu bees aussi bu ñu ko joxe ñi fi nekk nii rek waaye naka jekkit lii mooy am yéen a ngi fàttaliku xam ngeen ni président Senghor motion de censure la ñu def kon assemblée la ñu jaar ñu daaneel Mamadou ja mu utiliser justice bi ñu éliminer ko les mêmes pratiques le président Abdou Diouf doon def les mêmes pratiques le président Ablaye Wade doon def yéen a ngi rappelé wu bi ñuy indil jafé-jafé Idrissa Seck amna na ku siiw ci réew mi tey am fi bay baat keroog acte d'accusation bi moo demoon assemblée defi ko kon assemblée la ñuy utiliser éliminer nit jël utiliser justice bi instrumentaliser ko daggate nit te tey ji président Macky Sall les mêmes choses lay def aussi kon ngeen yaakaar ni ñun suñu mu ne am nañ ay institutions yu solide déedéet séparation de pouvoir amul dañoo jël ñetti wos teg ko ci réew mi mu ŋànkal ñu suñu pouvoir suñu kaddu ñaari institution yi dem jébbali ci kenn ki muy exécutif bi li ci gën a yéeme mooy acte bi nga xam ni juróom-ñeent ñii nga xam ni ñu bari nee nañ dañ leen a war a lim ñëpp xam leen sax juróom-ñeent ñooñu te Moustapha si nekk ca kanam bopp ba juróom-ñeent ñooñu wane nañ ñoom exécutif bi lañ fi nekkal ak lobby yi nekk bitim réew sénégalais yi ràññee nañu xàmmee nañu fii kenn waxu fi nit ku efféminé fii kenn waxu fi dañuy topp nit ñi di yëddu lan la ñuy def ci seen intimité loolu diine ji gën a yaatu ci réew mi

ni góor ak jigéen mën a gisante yàlla def seen diggante cofeel ñu jaar fan war a jaar ba ànd ci sëy jàpp nañ ni aussi góor ak góor man nañ ko noonu jigéen ak jigéen mën nañ ko noonu lañu xamoon ci wàllu famille muy góor ak jigéen fonde ko jàpp nañ ni léegi nag ay famille yu bari ñoo am góor kese mën naa doon famille jigéen kese mën na koo doon góor ak góor mën na koo doon jigéen ak jigéen mën na koo doon ñaari góor ñetti jigéen mën nañ koo doon doonandoo ñetti jigéen ñeenti góor mën nañ koo doonandoo li ñuy wax polyamour ñoom gis-gis boobu lañ bëgg a imposer àdduna kon mbokk yi ànd sàmm jikko yi nit ñi nañ dégluwaat bu baax te xam li muy wax lan la mooy perception bi nga xam ne moom la waa tugal am ci li doon dox te li ci ëpp sukkandikoo ci lu bàyyi ko woon ci asamaan ñu ne lii lañu gëm loolu lañ jàpp ni ñoom njuumte la nañu bàyyi nit ñi ci seen coobare ku ne la nga bëgg a def nga def ko lii mooy problème kon xam ngeen ni dañoo nekk ci kanamu défi civilisationnel dafa am lu ñu war a te wëlbati googu ñu koy wëlbati bu ñu seetaanee kenn ëpp ñu ci responsabilité ndax bu fekkente ni dafa am ñu yàq nga taxaw gis ni da ngay yàq donte nit ñi seetaan nan la ci yow itam da war ngaa fexe ba yàq googu ñu dakkal ko soko ko mënul it ci man war nga ko def bañu xamni yow sa kem katan def ko sénégalais yi yeewu nañ xam nañ li xew itam xam nañ ni agenda bi bu doxé dana yàq lu bari ci sunu système de valeur bi ñu amoon ak sunu ndolo xam nañ itam ni alinéa 3 bu article 319 bi ñuy wax ci contre nature

waaye ànd sàmm jikko yi doxewul noonu ànd sàmm jikko yi day mbootaay goo xam ni ñëpp dañ koo seq te lu ñëpp bokk lu ne ku ne da caa ne te yéen a déggal seen bopp yéen a gisal seen bopp boobaak léegi fenn fu ci nekk ci pàcc bu ne ci réew mi dégg ngeen fa ay nit àddu ci mbir mi wane ni ñoom am nañ ci naqar ak mbetteel yamul ci loolu kilifa yi jëllu nañ kàddu te bindulu nañ itam wane ni mbirum go jigen crime la fa yalla te crime la yi tamit ci ak nité crime la ci ak nité ñu fàttali ni position bi nga xamni mom la Sénégal jël ci institution internationale yi fay wane lu leer ci Sénégal dilatoire bi nga xamni ci la nek fim nek ni sont institutions yi tamit ci dilatoire bi ñu nekk ci EPU 2018 EPU moy jotay bi nga xamni mom la Nations Unies à travers le comité des droits de l'homme des Nations Unies di amal té réew mu nek ñu lay woo liñ la sant ñom ci seen gis-gis ci walu yoon ak yoonal ñu ne la soppil nangam ci sa constitution soppil nangam ci say loi soppil nangam ci say règlement buñ la ko santee nag juróomi at yu nekk da ngaa war a ñëw Nations Unies saytu la ba xam ndigal yi mu la joxoon yan jéegu nga ci def. Sénégal dem na EPU bu 2008 dem na ëpp EPU bu 2013 dem na EPU bu 2018 Sénégal mi ngi waaj pour dem 2023 chaque cinq ans Sénégal day dem EPU bu 2018. Sénégal dafa wax ni lu jëm ci mbirum jigéen ñiy sëy góor ñiy sëy ñi nga xam ni danañ sëyee ñaar ñi transgenre yi ak ñi mel ni ñoom délégation bi leeral na bu weer ni Sénégal réewum Sénégal daanul mbirum góor jigéen te amul kenn ku nekk ci biir Sénégal ñu tëj ko ci kaso te mbir mi rek tax ñu def ko li ma wax c'est vérifiable dem leen ci rapport bu EPU bu 2018 lii la Sénégal wax kon nag leer na ni Sénégal position bi mu ci jël à l'échelle internationale ci kanamu Nations Unies lu leer la ñoom daanuñu mbir moom te itam bokk na ci argument ñoom bi ñu avancé mooy acte contre nature daan nañ ko ba pare soxlawul kon ñu ciy dellusiwaat

le 17 mai 1990 Nations Unies qui bànqaasam bu ñuy wax OMS moo dindi ngóor qui ci mbir yi nga xam ne normal nañ qu'on appelle la classification internationale des maladies donc jàpp ni le lu normal la qu'on kon beaucoup bokkatul ci contre nature waaye yamuti. en 2011 Nations Unies dafa sax faf jéggi Tek moy dafa consacrer li ñuy wax ay droits nouveaux ak ak yelef yu yes ci résolution bo xamné wax nañ ko waxati ko répéter ko muy la résolution 17 L9 bu 15 juin 2011 ay droits nouveaux la consacrer mu jëm ci góor jigéen yoy ak minorité yi kon lolu amna évolution bu ci am lolo waral contre nature ngo jigéen bokatu ci kon nak Lima ma wax su fekkonte ni Sénégal champion du monde xaw fum fu amul coupe ak raaya Sénégal am na ko ci signature ak ratification de traité et de convention Sénégal wax nañ ni mora raw ci àdduna bi ñëpp moo raw ñëpp ci fànn boobu moom lu tubaab yi ñëw ni tissoli mu ni yarhamukallah bu tubaab bi mu da daa balaa àggale ak weex mu ko bu tubaab yi nee dafa ñuumu balaa àgg ci lëga mu ni ko kukk kukk kukk kukk Sénégal moo raw ci àdduna bi ci signature de traité li ëpp ci traité yi Nations Unies def Sénégal signé nañ ko Sénégal ratifié na ko te li ci gën a metti te gën cee metti mooy Sénégal daanaka daanaka daanaka sañas naa wax ni du def réserve moom day indi mu ni ah indi leen ma naan rek lii posen la mu ni bàyyi rek mën naa jox sama askan ñu naan bu ñu faatoon nag mu ni sama yoon nekku ci yow daal tubaab bi li nga bëgg moom naa koy def rek déem a gërëm rek fii la Sénégal tool te xam ngeen ni bu ngeen demee ci constitution moo tax ñu li ñuy wax lu ñu leer la c'est c'est très technique te bañ tàmbalee ba léegi amul kenn ku mën a contester li ñuy wax nii dem leen ci article 98 bu constitution bi lan la wax moy Sénégal bu signé ab traité wala convention bu ñëwé ci réew mi ba ñu yóbbu ko ngomb lan nga ñu ratifié ko bu ñu ko génné ci journal officiel fay doon une loi supranationale fay tim loi yi mu fekkoon ci réew mi mais c'est extrêmement grave ce qui veut dire qu'on est réew mi nañu wóor ni man nañoo tas sax assemblée nationale jaratu ndax traité bu Sénégal signé buñ ko jaaralee fiñ ko war a jaarale mooy tiim loi yi mu fekkoon ci réew mi nga xam ni kon il faut ñu soppal ñi loi bi mu fekkoon ci réew mi moom la ñuy wax harmonisation yemul ci loolu ba tey ëppee wu 2018 gis nañ ci Sénégal waxit ni mbirum góor jigéen du délit Sénégal te amul benn benn benn poursuite judiciaire boo xam ni teg nañ ko top ko xamni nit la té lool rek a taxoon mu def kon nag ginnaw bi nga xamante Sénégal résolution bi nga xamni moy résolution bi ñu waxon sak consacrer ay droits nouveaux depuis 2011 ak bi mu ratifier tamit le protocole de Maputo ci 2005 deseetu ko won dara mom Sénégal lu nak nag set a seet yan xàll ak yoon la mën jaar ba duut duutal fi mbir mi Nations Unies bëgg ci lo xamni askan wi du ko xam jaaré ko ci par exemple la SNEC 2 SNEC 2 soxlawul ma ci taxaw ñepp xam ngeen vision bi xam na ni à l'horizon 2026 mooy Sénégal bu fi kenn boddeeti kenn imam bi góor jigéen beeg ñëpp ay bokk yem àq ak yelleef ci biir réew mi waaye jame koy ci njàng mi ak njàngale mi ci daara yi muy lan

nous devons ci parlementaires à travers le PGA PGA boobu assemblée nationale du Sénégal bokk 143 pays ci ñoo ci bokk assemblée Sénégal sénégalais ñoo ngi liggéey lan lañ leen di nañu ba disposition buy nit orientation sexuelle et identité de genre nañ fexe ñu supprimer ko nañu fexe ba waajal ay loi yoo xam ni tamit daf koy légaliser kon ñoom ñoo ci perspective yoo xam ni yu leer la nañu fexe itam ba seen parti politique yi nañu def plaidoyer bi ci war ba góor jigéen ñi déclarer ko nañu fexé ba mën nañu nek ci instance yi nañu fexé yi tamit ba nañu doon ay candidat ci municipal yi candidat ci assemblée waye nañu fexé ba jappalé góor jigéen ni ñu jité réew mi aussi L'imay wax c'est inscrit dans un document officiel Assemblée nationale du Sénégal mi ngi Les députés sénégalais ci il y a plus de 14 000 parlementaires dans le monde yu ciy il y a beaucoup l'autre cercle le milieu du travail Les yi milieu professionnel bi ñu ni tamit nañu cadre boo les ni société ba fexe ba inclusion góor jigéen yi tamit y a am yemul ci loolu he for she benn mbootaay la bo xamni ni ONU Femmes ñoo taxawal ak yenen bànqaas yu bari moy he c'est de l'anglais ku goor ki nekkal ku jigen ki he for she sen yitte moy l'avancée positive et la représentation des LGBT gis ngeen émeutes yi amoon fii mois de mars Sénégal ba fukki sénégalais ak nangam faatu ci keroog bi président di jël kàddu di wax ak askan wi pince bu xiifoo si la takk ci fii nga xam ni communication bi ñaar la woon day wax ak sénégalais yi di wax ak góor jigéen yi aussi ak Nations Unies loolu ñëpp gis nañ ko mën naa leen a wanaat image yi fii ngeen gis ko aussi mm-hmm. kon loolu tamit mi ngi dox ci réew mi ak yeneen yoo xam ne su ma ko toppee fi lay yendu ngir lan jiwu li nga xam ni moo jëm ci orientation sexuelle et identité de genre ñu ji ko ci biir réew mi jaar ci ay pàcc ak i fànn yu wuute yu bari ngir roose ko ndox moo xam ni ci askan wi lay jóge te fekk na askan wi bëgg ko ngir yaatal ko fi ngir fi yokk xëñ na juróomi at fukki at ñaar fukk amaana ba ba ngay xam ni dana mën a nekk ñu def ko fi na muy amee ca tugal nami amé États-Unis nami amé Canada mo walal mbok yi ngeen xamni Sénégal bu ngeen ci déggé li est ni dépénalisation homosexualité li ma wax ba ci e la mbir la mu complexe mbir la mu doy ci Sénégal dafa laaj may ñu temps laaj temps ni tay tay waaye faw ñu may ko ak neggandiku ngir mu liggéey ci ba ëllëg mu mën a am nee na laaj na tamit ab gëstu akub liggéey akub xóotal une étude minutieuse ndax Sénégal dafa am ay particularités sociologiques dellu leen ci ëpp e EPU bi tamit da ngeen ko ci fekk lii la Sénégal wax kon leer na ni état bu senegal mu ngi liggéey ci agenda bu dëppoowul ak bëgg-bëggu sénégalais yi ak seen gëm-gëm ci yegg sax bay mel ni dafay suufeel ndono li nga xam ne amoon nañ ko ak mbaax gi réew mii ñëpp xamee ko lii lépp nag ku ko xool ba seetlu ko da nga xam ni sikki sàkk waratu la am te ñoom ñi ñuy waxal mësu leen a dégg ku dellusiwaat ci discours bii ni ñu ñoom li ñuy wax du noonu dañ naan ay politiciens lañu ay islamist lañu ay barbu lañu ay nangam waa ji ni ah réew mi nañu waxtaane ñu ni eh mais ki koy wax kan la ki koy wax amul solo li muy wax moo am solo réew yi ñoo commencé bokk ñun ñoo ngi déglu ñëpp kon. gis ngeen du ñu wax ci question de fond bi waa ji koy wax de li yu ñaaw yii ak yu demee noonu ñun ay détails ku ñu ci woowee duñ la ci wuyu parce que li ñuy wax xam nañ ni mooy li am kon nag ñoom juróom-ñeent ñii de li ñu def wasaare ko sax ci mbooleem benn Benno ko Yaakaar ñëpp ndax wax naa ko sànq bari na ci ay député yu nekk ci ñoom yoo xam ne ñoo ngi liggéey ñun ci mbir mi te am na ay député yu bokk ci ñoom ñoo xam ne bokk nañ ci ñu porter proposition de kon li ñuy wax maasale ko ci ñoom ñëpp waaye terewul nag ñu wax sénégalais yi ni leen ndax jotul ñu seetluwaat gis-gis bi ñu amoon ci sunu ngombalaan gi wala boog sunu ndaw yi nga xam ne ñoo leen di tànn ñu ay député ndax jotul ci ñu xoolaat ko kon.

amuñu ngomblaan wala assemblée nationale boo xam ni ay sénégalais yoo xam ni ay jigéen la ñuy doon yu takku ay jigéen yoo xam ni Sénégal moo leen di gënal seen jëmm ak seen lépp ay jigéen ñoo xam ni am nañu ngëm-ngëm te ci principe lañuy ñuy dox ay jigéen ñoo xam ni askan wi ak yittey askan wi moo leen di gënal seen bopp ak seen yittey bopp naka noonu ay góor ñu taxaw ci taxawaay boobu. Je le taxawal dignement ak fièrement du Sénégal. lu jall criminalisation bi nga xamni mom lañ doon wax homosexualité ak dakal gi nga xamni ngi koy ci agenda bi nañ ko taxawal ndax ci sénégalais lañ koy doxal té ñi koy defit di des xam nañ ni dafa melni sénégalais ko de def ci kon loolu tamit nañ ko ànd sàmm jikko yi du musa noppul tant que dëgg-dëgg buum yi nga xam ni moo tënk sénégalais yi tënk africains yi buum yooyu yëpp daggul ci loolu ànd sàmm jikko yi mi ngi yëgle ni ñaar fukki fan weeru février bi ñu jëm danañ def rassemblement boo xam rassemblement national lay doon bu mag ñu dajale Sénégalais yépp li nu yoon may ñu jël wane ni anduñu ci lii te duñ ci ànd te danañ taxaw temm ci askan wi ñu respecté volonté na askan wi kenn ku ci nekk jël sa responsabilité ci maa tey njombe tooñ gi nga xam ni si juróom-ñeenti nit ñoo ko def juróom-ñeent yi gaañu nee na naa ko jàng ma liir leen juróom-ñeent ñi nga xam ni juróom-ñeent ñi nga xam ni ñoom ñoo jël ab dogal ni sunu xalif généraux yi ay citoyens ordinaire lañu dañ ko doon dégg waaye ñoom jëf nañ ko Moustapha moo ca jiitu Cheikh Tidiane gaajo wax dëgg man personnellement moomu ci gën a bett ndax jàppoon naa ni ku gëm ay valeurs africain la Ndeye si Cissé Daouda ja ay maire ñing moom bettul kenn ndax bi loi bi duggee rek moom la daal def ab communiqué Abdou Mbow Ndeye Siré Ndiaye foog naa moo dëkk Mbour ay Aïssatou Sow Diawara moom seeti woon nañ ko seeti woon nañ ko coordinateur départemental bu Guédiawaye gi nii def nañ délégation dem fa mu assuré ñu ni loi bi moom maa ngi taxaw di ko xaar mbootaay gi ma yor bu ñuy ñëw rek ay jàll laa wax soxlawul sax muy kii ma maa koy def ak aale loo ñii ñooy juróom-ñeent ñi nga xam ni ñoo jàpp ni askanu Sénégal tekkiwuñu dara te seeni kilifa yi tamit seen kàddu tekkewul dara seen signature yi tamit amul benn valeur. waaye gis ngeen ni lii am na fa ko sénégalais yi teg bërki démb la demoon ci ab jongante muy élection locale yi man de waxuma ko waaye déglu naa ñu baree bare baree bari ñoo xam ne ay nee nañu ay analyste lañu dañuy jàngat ñoom defet bi nga xam ni ñi rejeté proposition de loi bi fa lañ fété am nañ ko ak recul bi ak ñi leen askan wi sanctionné ñom lëkkale nañ ko ak delloo gi ñu delloo ginnaw proposition de loi bi ak nañ ko bloqué. ah bu fekkente ni askan wi ñom mom réew wi tànn seen ndaw ni li lañu bëgg ngeen defal ñuko am soxla ni leen dañoo bëgg li ñu leen yeen seen soxla amul solo ah nga wëlbati ko ni ko mané ne dama la soxla moom it bu ko neexee di la yow it sa soxla amul ma ko solo. bien sûr. tant que nag ñi ñuy tànn ci biir réew mi ñoo continuer di wéy di sobantal yittey askan wi ak di ko nañu xam ni tamit askan wi dana doyadal seeni soxla te dana ko it ginnaawal. xeex bi deful lu dul lay soog a dafa am de insha ci war a taxawee yëpp yëpp yëpp danañ ko taxawe am na ci loo xam ni mënees na ko wax waaye am na loo xam ni deesu ko wax te ñoo ngi ciy liggéey te ñoom xam na ni ñoom xam na ni xam nañu ñoom it xam na ni ñun xam nañu li nu bokk ku ci ne da cee am cër jigéen ñi am nañ ci seen cër ndaw ñi am nañ ko ci góor ñi dañ ko ci am boo sacré bi dafa am cër ci réew mi jàngu bi dañ ko fi am diine lislaam ji majoritaire yi daf ko ci am kon kenn ku ci nekk cëram bi mu am loola daf ko war a jël ba mu mat sëkk te kenn bañ tooñ kenn te gis nañ ni ñu fi majoritaire moom dañ leen di tooñ barhaamu baaun waraaun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan